قابلهما بعد وانظر صاحي بينهما بتلك الأربعة الأنظار معتملا فحاصل منه جزء السهم تضربه في الأصل واسهم لكل ما له أصلا من وفعل دفل كذلك كم نونا وإنما لو أقول نلا وفك بين جروب نيو في نك من نيو سدو سنتر لا فانظر هنا بين من جارت سهامهم وبينها إن يكن في صنف عزلا فإن أبان اتفاقا فليرد إلى yufaaqi aw abaana al ixtilaafa fala noonu mu la ko waxee woon mu ne bu fekkee tamit du benn groupe waaye ñaari groupe ñoo mënta séddoo seen cër kadalika comme noonu da ngay def moom la wax ne wafaal defal kadalika comme noonu fii tasxihi masalatin ci wéral am masala boo xam ne tul fii da nga fekk biyaa ca masala ba alkasra ak damm mun jaila muy aji defu fistin fee ni ci ñaari group mu fistin fee ni ci ñaari xeet mooy ñaari groupe ñoo mënta seddoo seen ceeb dana ci indi ay misaal boobaa da ngay dem nam la njëkkoon a wax rek nga xool diggante group bu nekk ak cëram nan lañ def foofa nag ñaar nga fay xool ak tawaafuq ak ak tabaayun boo paree ca loolu mu ne xaabil huma nga daal di méngale ñaari groupe ya baadu ca gannaaw ga wanzur nga xool saaxi yow àndandoor bi yaa saaxi bii la woon waaye dafa dagan ñi tarxiim ko baynahuma diggante ñaari groupe ya muctamilan ngay aji jëfandikoo bi tilkal arbaatil yi ci yooyee ñeenti xool mu ne bu fekkee nag pare nga ci xool diggante groupe bu nekk nu mu def ak cëram te foofa ñaar nga fay xool ak tawaafuq ak tabaayun boo ca paree nag nga daal di xool diggante ñaari groupe yi ñoom groupe bu nekk ak moromam ñoom ñaar nan lañ def foofu nag moom mën ngaa xool al anzaarul arbaa yépp foofa mën ngaa xool al anzaarul arbaa yëpp moom lay wax ne fa xaasilun aji am ji minhu tukkee ci moom ginnaaw boo xoolee diggante ñaari cër yi ñaari groupe yi la ñaari groupe yi boo leen xoolee ñoom ñaar méngale leen te foofu al anzaarul arbaa yëpp ngay xool boo xoolee bu fekkee dafa def tawaafuq nga jël wifqu ba kon nuñ ko jàngee bu fekkee dafa def tabaayun maanaam mooy jël wifqu benn ba darbu ca beneen ba bu fekkee dafa def tamaasul nga jël benn ci ñoom ñaar bu dee dafa def tadaaxul nga jël bi gën a bari bu fekkee dafa def tabayan nga jël benn bi darbu ci léppi moroom ko loolu lay wax nag ne fa xaasilun aji am minu tukkee ci moom juzu semi loolu ñu tuddee juzu semi ba tadribuhu da nga ko darbu fil asli ci cosaanu masala ba washam nga daal di cëral li kulli ñeel képp maa la nga xam ne asula cosaanu loo ñeel ko ku nekk la njëkkoon a am juzu semi boobu ngay jël darbu ko ci lam njëkkoon am rek masala bi day jub bu boobaa moom lay firi mu ne wa kadalika noonu la mel inin kasarat ndem damm na ala sinfayni ci ñaari groupe yanzuru day xool alxaasibu aji wàññi ji awalan ca njëlbeen bayna kulli sinfin diggante bépp xeet wa sihaamihi ak ciram loolu lay njëkk xool bin nadarayni ci ñaari xool almazkurayni yedde yu ñu tuddoon almuwaafaqati wal mubaayana loolu leeraloon nañ ko jëru dellu si fa yarudda mu delloo almuwaafiqa aji dëppoo ja ilaa wifqi jëm ci wifqam ba waye troka mu bàyyi al mu bàyyi na aji juyoo ji ala yi ci su ma qaabala topp mu daal di méngale nag baynuma seen diggante ñoom ñaar diggante ñaari groupe yi bu fekkee mu waafaqa la wifqu ba lay jël ak beneen group ba xool yaa ngi dégg bu fekkee ne mu bàyyi na la mu jël adat ba yépp dar euh, darbu ci meneen ka bu dee muwaafaqa la day jël wifqu ba darbu ci keneen ka bu dee التداخل لا مجال الأكثر بيجنا بري بدي تماس لا مجال بيني تنيام نيام لون نقل إلى المونة فيرود ديدا لو الموافق أجد فوج إلى وفق جم توفق بويترك مباي المباين أجي جوج على حاله تملم ثم قابل توب مهنجل بينه ما سندقن تنيام نيار فيأخذ مدال لجل ما حصل لأم من ضرب أحد ما تكيكي دور كنو بين تنيام نيار في وفق الآخر تي وفق مرامكم in tawaafaqa bu dekkee dañoo def tawaafuq aw fi kulli wala ci léppam in tabaayana bu dee dañoo def tabaayun aw aktarima wala ba ëpp ca ñoom ñaar in tadaaxala bu dee dañoo def tadaaxul aw ahadima wala benn ce ñoom ñaar in tamaasala bu dee dañoo def tamaasul maanaam li cheikh bi rahmatullah alayhi di wax fi mooy boo xoolee diggante ñaari groupe yi maanaam diggante sinfayni nii nga gis ne dañoo def tawaafuq da ngay jël wifqu benn bi bu ko ci morom ki loolu nga ci amee loolu mooy juzu saami bi bu fekkee dañoo def tabaayun da ngay jël benn bi lépp darbu ci lépp morom loolu mu la jox loolu mooy juzu sahmi bi bu fekkee dañoo def tadaaxul da ngay jël bi ëpp bi gën a bari loolu mooy juzu sahmi bi bu fekkee dañoo def tamaasul nga jël benn ci ñoom ñaar loolu mooy juzu sahmi boobu nag moom ngay darbu ci cosaanu masala bi bu fekkee am na awlu ba konte wala awlu ba moom lay wanaam fa bu dees nga dóor ko fii aslil masalati ci cosaanu masala bi mooy juzu sahmi boobu bi ictibaari awliya ànd ak xalam awlum in kaana ndem awlu am na wa hunaaka foofa nag arbaatu anzaarin nekk na foofa arbaatu anzaarin ñeenti xool ala nazarini ci ñaari xool sa nu fii di ko sa nu fii du ko danañu jëriñ la bi am saritea ci ay misaalam ifaadat na ak jëriñ taamatan gay aji mat mu ne nag ñaari xool ci ñi ñeenti xool ci ñaari xool loolu mooy ginnaaw ñaari groupe yi buñ ñëwee nga xam ne mënuñu seddoo seen alal groupe bu nekk dañ koy njëkk a xool moom ak cëram ñaari groupe yëpp ku nekk da koy xool moom ak cëram te foofu ñaari xool rek nga fay xool comme ni ñu ko jàngee ci ginnaaw al muwaafaqa ak mubaayana boo paree ci diggante xool groupe bu nekk ak te foofu mubaayana ak tabaayun ak euh, tawaafaq rek nga fay xool nga door a xool nag groupe ñaari groupe yi ñoom ñaar nan lañ def maanaam ñaari groupe yi war a séddoo ñoom ñaar nan lañ def foofu nag da ngay xool ñeenti xool yëpp loolu lay wax ne. wa hunaka arbaatu anzarin ala nazarini loolu rek la ci jublu mu lay indil misaal nag ci ñaari groupe yëpp ci ñeenti anam yëpp ci anamu tawaafuq ak anamu tadaaxul ak anamu tamaasul ak anamu tabaayun mu njëkkee tawaafuq mu ne fa bi misaalil mutawaafiqayni ci misaalam ñaari groupe yoo xam ne dañoo def tawaafuq arbau zawjaatin ñeenti soxna wa uxtun ak mbokku shaqi wa uxtun mbokk mu jigéen shaqiqatun nga xam ne moom niw bi ñoo bokk ndey ak baay wa sittatu umumatin ak juróom benn baay tax kii dafa bëgg gaañu bàyyi fii ñeenti soxna ak benn sëram bu mbokkal ndey ak ak juróom benn baay taxam baay tax yi moom duñ donnee cër tansib la ñuy donnee uxtu shaqiqa mu ngi doon nisf ndaxte moom kese arbau zawjaat ni ñu ngi doon na rubo te doom amul nga xool ñaar ñoo fay jël cër uxtu shaqiqa nisfu nisfu min isnain arbau zawjaatin rubo rubo min arba nga xool diggante rubo ak isnaani lan lañ def nga gis ne dañoo def at tadaaxul dañoo def at tadaaxul kon nga jël arbaa ba ba nga jëlee arbaa jox ñeenti soxna yi seen benn mbokk mu jigéen mi jël ñaar sittatu umumatin jël seen jël benn kon sittatu umumatin mënuñoo séddoo juróom benn mënuñoo séddoo benn waaye ñeent mënuñoo séddoo benn kon ñaari groupe ngi ñoo xam ne mënuñoo seddoo seen cër bu boobaa lan ngay njëkk def da ngay njëkk a xool ñeenti soxna yi ak seen cër bi nan lañ def loolu la doon wax ne nazareen loolu mooy ñaari xoolee foofu mu waafaqa rek nga fay xool ak mu na nga xool diggante ñeenti soxna yi ak seen benn nga gis ni dañoo def tabaayun bañ defee tabaayun darbul kulli alal kulli nga jël arbaa bi dar bu ko ci waaye da jox arbaa ba tey ba xool juróom benn yi ak seen benn na lañ def nga gis ni dañoo def tabaayun nga jël sitta bi darbu ko ci waaxit mu jox la sitta ba tey léegi nag nga bàyyi fa loolu ñëwaat nag sitta boobu juróom benn bàyyi tax yooyu ak ñeenti soxna yi nga xool leen ñoom foofu nag la wax ne bi bi tilkal arbaatil anzaar yi ñeenti xool nga fay xool muwaafaqa mu bàyyee na mu maasala ak mu daaxala wala tadaaxul comme niñ koy waxee ba nga xolé diggante arbaa ak sitta nan lañ def da ngay gis ne dañoo def li ñu tuddee at tawafuq dañuy def at tawafuq bin nesu sitta man nga xacc xaaj ci digg bi arba man nga xacc xaaj ci digg bi bañ defé tawafuq da ngay jël wifqu ben ba moy arba bi wifqum ñaata la du isnaani nga jël isnaani darb ko ci sitta ba nga jëlee isnaani darb ko ci sitta lanen la juróom-benn bu la neexoon tam nga jël wifqu sitta bi muy ñett nga darb ko ci arbaan da lay jox fukk ak ñaar ba tey fukk ak ñaar yooyu nag la wax ne loolu mooy juzu sahmi bi loolu mooy juzu sahmi bi juzu sahmi boobu nag lay wax ne moom ngay darbu ci mas cosaanu masala kon fukk ak ñaar yooyu moom ngay darbu ci cosaanu masala ba cosaanu masala ba ñaata la woon ñeent ba nga jëlee ñeent darbu ko ci fukk ak ñaar ñaata la lay jox da jox samaniyatun wa arbaun samaniyatun wa ñeent boo ko dar boo ko multiplier quatre fois douze da lay jox quarante huit moom tax mu ne la asluha cosaanam arbaatun ñeent la waaye wa tasixu dana wére bi samaniyatin ci juróom-ñett wa arbain ak ñeent fukk loolu mooy misaalam tawaafo mu ne wa misaalu mutabaayinee nii misaalam ñaari yoo xam ne dañoo def tabaayun zawjataani mooy ñaari soxna wa xamsati wa xamsatu ixwatin ak juróomi bokk yu góor asluwaa cosaanam arbaatun ñeent la waaye wa tasixu dana wéree bi arbaina ci ñeent fukk foofu bokk yu góor yi ñu ngi doone tansib ñaari soxna yi ñu ngi doon robon ndaxte doom amul robon min arbaa kenn moo fa jël cër ñaari soxna yi jël seen benn benn ñaar ñu koo seddoo ñett moo fa des juróom mënuñoo séddoo juróomi bokk yi mënuñoo séddoo ñett kon ñaari groupe ngi ñoo xam ne ñoom tamit mënuñoo séddoo seen cër bu boobaa da ngay njëkk a xool comme na mu ko waxee woon rek groupe bu nekk ak cëram bo ci paré do a xol ñaari groupe yi ba nga xolé ñaari groupe yi pour gattal ba nga ñëkke xol groupe bu nekk ci ram nan lañ def ñaari soxna mënu ñoo seddoo benn juróomi bokkute mënu ñoo seddoo ñett kon groupe bu nekk ci ram dañu def tabayun nga door xol nak légui euh nga door xol nak légui euh ñaari groupe yi nan lañ def ba nga xolé ñaari groupe yi digënde xam zawja ak isnaani nan lañ def nga gis ne dañoo def li ñuy tuddee ak tabaayun bi ñu defee tabaayun da ngay jël benn ba lépp darbu ca moroom ko lépp ba nga jëlee xam sa darbu ko ci isnaani dalaa jox fukk deux fois cinq dix dix yooyu ngay jël nag muy fukki yi loolu la ñuy tuddee juzu sahmi bi juzu sahmi bi juzu sahmi boobu nag ngay darbu ci cosaanu masala bi cosaan bi ñaata la woon ñeent kon dix boo ko multiplier par ñeent daf lay jox arbaun muy ñeent fukk na nga def daf lay jox ñeent fukk kon foofu ci ñeent fukk lay wéree moo tax mu ne wa tasixu dana wér bi arbaun ci ñeent fukk loolu mooy ak tabayun mu ne wa misaalul mutadaaxilee ni misaalam ñaar yoo xam ne dañoo def tadaaxul arbau zawjaatin mooy ñeenti soxna wa yetu ixwatin ak juróom-ñetti bokk asluwaa cosaanam arbaatun ñeent la waaye wa tasixu dana wéree bis nay ni ci ñaar wa salaatina ak ñett fukk mooy fanweer boobu mooy attadaaxul lu tax ñeenti soxna rubon la ñuy doon ndaxte doom amul juróom-ñetti mbokk tansib la ñuy doon ne tansib la doon ne kon kenn dafay jël cër min arbaa ñeenti soxna yi jël seen benn ñeent mënuñoo séddoo benn juróom-ñett te mënuñoo séddoo ñett ba nga xoolee diggante cër bu nekk ñett dangay gis ne foofu la am mooy tabaayun ba tey nga wacc ko fa daal di ñëw xoolaat. parce que bu dee tabaarun la comme niñ ko waxoon da ngay xool diggante niñ ko waxoon bu dee tabaarun la da nga koy wa yatruku ala xaal yi da nga koy bàyyi ci ni mel noonu rek nga jël benn ba bu doon ne tawaa tawaafuq la lañ laa naan da ngay jël wifqu benn ba yaa ngi dégg moom la waxoon ci ginnaaw mu ne fa yaxudu ma xasala min darbi ahadihima fi wifqi l axiri fi wifqi l axiri bu fekkoon ne dañoo def tawaafuq da ngay jël wifqu benn ba darbu ko ci morom yaa ngi dégg bu fekkee tabaañu na nag da ngay jël euh, da nga koy bàyyi ci melokaanam noonu mu mel lépp ngay jël kon fii tadaaxul tadaaxul moo fi am arbao zawjatin wa samaniyatu ixwatin arbaa mooy ñeenti ñeenti jabar jël nañ seen benn mënuñ koo seddoo juróom-ñetti bokk tamit mënuñoo seddoo seen ñett nga gis ne ñaari group yi bu ci nekk ak ciram dañoo def at tabaayun bañ demee tabaayut nga bàyyi leen seen melokaan nga xool diggante ñaari groupe yi na lañ def ñaari groupe yi ba nga xoolee diggante arbaas samaaniya da ngaa gis ne dañoo def tadaaxul bañ defee tadaaxul nga jël bi gën a bari muy samaaniya ba samaaniya boobu mooy juzu sahmi bi samaaniya boobu nag ngay darbu ci arbaa boo ko defee 4 fois 8 dalay jox 32 muy isnaani wa salaasun wa misaalul mutamaasilayni misaalam ñaar yoo xam ne dañoo toll nag arbau zawjaatin arbau zawjaatin mooy ñeenti soxna wa arbaa ixwatin ak ñeenti bokk yu góor asluwaa cosaanam arbaatu ñeenti la waaye wa tasixu dina wéree bi sittata achara ci juróom-benn ak fukk muy fukk ak juróom-benn lu tax mooy kenn moo fay jël cër mooy jabar yi benn mooy seen mooy seen cër ñeent mënuñoo seddoo benn ñeent tamit ñëw seddoo ñett ba mu defee loolu kon foofu la fa am mooy tamaasul nga jël benn ci ñoom ñaar boo jël baax na nga jël arbaa dara bu ko ci cosaanu ñeent Euh, arbaa madruba ala arbaa daf lay jox fukk ak juróom-benn quatre fois quatre seize seize yooyu da nga gis ne ku nekk lam njëkkoon am arbaa zawjaat benn lañ amoon nga jël arbaa boobu darbu ko ci arbaa ba mu jox la ñeent ba tey euh, arbaatu ixwati ñett lañ amoon nga jël arbaa darbu ko ci salaasa daf lay jox fukk ñaar fukk ñaar ñeent mën nañ ko ñeent mën nañ koo séddu ku nekk day am ñett bu booba loolu lay wax na ne wa amma am silatuwa ndaal misaalam maa la awli bu fekkee dafa ànd ak awlu xam nga loolu wax na la ko ne la bi ictibaari awluha awliha fa nag tafi dañuy doyloo ana walis ko bi ma taqaddama ci li jiitu euh, anifan sànq nag bu fekkee ne dafa am awlu ci masala yooyu noonu muy ñaari groupe yi nga xam am na fa ci ñaari groupe yëpp waaye amaale na awlu loolu niñ ko jàngee woon sànq ci ginnaaw rek même chose lay doon dara du ci soppeeku موتاخ مونے جيرب موتي دلسوان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين